wasalaatu wasalaam ala seydina muhammad sallallahu alayhi wa ñoo ngi nuyu waa senegal yépp di nuyu mbooleem fu kilifa diine ne waaye ñoo ngi nuyu waa Tiwaawan nag di nuyu mboolem njaboot Cheikh Seydi Hadji Malick di ci jiital sunu xalifa sëñ Babacar Sy Mansour di leen ñaanal yàlla yal na yàlla defal leen li nu bëgg di nuyu sunu porte parole sëriñ Pape Malick Sy Tiwaawan TV daal ñëw na di jàngale mag ni nag ku ne xam na ni jàngale Seydi Hadji Malick Sy te Seydi Hadji li mu jàngale ci mimiye jàngale ko ci tey si jàngale ko ci loo xam ne ni sax buñ fi toogee di ko lim day yàgg yooyu yëpp Tivaouane TV bi am nañ yéene di ko génne ku ne xam na ni njabootam gu baax gi xeex Seydi Moustapha Sy Jamil ba sëñ Mansour Sy borom daara gi yal na yàlla yeesal yërmandeem seen kaw sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum professeur fa tabaarakallaahu sëñ Abdou Aziz Sy Al Amin niñ Babacar Sy Mansour Alhaaji Maay Sy Maodo yooyu yëpp seen njàngale mi ngi fi mu nekk njàngale moo xam ni nag dañ ko wër di génne xale yi di ci roy ndax kuy roy da ngay roy lu baax kon Tivaouane TV daal egsi na pour génne njàngale Seydi Hadji Malick ak njabootam Tivaouane TV egsi na ñu bëgg fo waay toll nga di ko seetaan ci seeni annonce fa tabaarakallaahu ak seeni yëgle ak seen yépp fa tabaarakallaahu kon daal Tivaouane TV ngoog egsi kon na ko di seetaan ya nabi alayka TV ya di biddéew bi leen di gindi ci xadaratu ya ak tijaaniya Tivaouane télévision la lumière